leen ak jàmm mbokk ndax dina dellu ca lamb jéem déet noonee def daal wax ci situation bi ñuy dund di situation Covid 19 ak huis bi nga xam ne njort nañ ne lamb ji dana ca dem foofee jaar moom Ousin Diop daal tàllal micro ki nga xam ne moom mooy Eumeu Sène te war a tase ak Kalmu mu wax combat boobu boobee war a dox digganteem ak Calme Ndour ana naka la koy waaj lan moo tax mu jël ki nga xam ne moom mooy Calme Ndour noonu nag mbokk yi la ñuy def ak yéen it di dugg ci xibaari làmb yi nga xam ne moom la suñu làmb xëy fësal ci huis clos bi nga xam ne ñu ngi koy njort ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé combat royal boobee ci arène national ñu ni di laaj ba xam ndax euh, bu boobee combat amee ci Pikine ana kan ci ñaari mbëri moo ciy profité naka noone nag am na ay euh, xalaatkat ci làmb ku ci mel ni Maxime ku ci mel ni Eh, ki nga xamante ne nii moom mooy Balla Diouf ak Boy Kayre ñoom ñëpp yëkkati nañ ci ay kàddu dal di wax seen xalaat ci mbir moomee noonee it la ñuy daal di duggee rek ci Xaadim Samb suñu papa joojee nga xamee mooy borom Njarndem production ci combat bi muy waaja taxawal diggante Moussa Ndoye ak Ama Neex jàpp na ne combat bi bu ñaari mbëri waxee lu jaadu dana taxawal bi ne combat te dana ko def huit kilos daal di ubbi baal bi woon xale yi naka la ak nan la toftal ci combat ñàkk jariñoo ak Aline Seydo mbokki li mu nekk li gën a fës ci xibaari làmb yi ne suñu ñoo génn ci yaatal yi comme ni ñu leen ko waxee ci bopp euh, xibaar yi Ousseyn Diop moo ñu demaloon foofee ca Géejawaay ci écurie Mor Fadam fa fekk président ba ñuy wax Pathé Sylla nekk président écurie ba ba noppi bokk ca ARELS moom yëkkati na ay kàddu daal di koy jëmale ci mbas mi nga xam ne moom la ñuy dund ak huis clos bi ñu jàpp ne euh, làmb ji la jëm moom nag joxe na ci xalaatam ci ni mu gën a yaatoo dañuy dem déglu ko ci micro Ousseyn Diop. moom moo fi sës huis clos moom moo fi sës su dul loolu toog nañ 9 mois xaw ma 10 mois mois. parce que première vague bi bi mu ñëwee dem nañ ba benn instant fin ba ñu ngi naan ay di commencé affaire bi commencé di wàññeeku di kalaare di wàññeeku ndànk-ndànk xam nga di wàññeeku di wàññeeku ba gars yi amoon yaakaar ne day day jeex ñu commencé waat beneen beneen programme mu jékki-jékki affaire bi yokk kon léegi loolu benn benn leen rek laa fi gis moo ñu def fii ku ba pare respecté protocole sanitaire bi en tout cas. maa ngi profité ci occasion bi di nuyu waa ARELS mooy kuréel gi ma bokk mooy président écrit yi ak école yi ci Sénégal pare nañ pour accompagner CNG ci programme wii clos bi pare nañ pour accompagner promoteur pour ñu tëgg à huis clos pare nañ pour respecter tous les tout tout le règlement pour le huis clos pare nañ pour euh, avancer waat ci làmb ñun waa ARELS pare nañ pour loolu. foofee mu waxee fa la Eumeu Sène junior moom it waxee euh, nekk ca géejawaay moom it la mu xalaat ci huis clos bi du lenn lu dul ñoom mbër yi amuñu lu ñu ciy bañ sañ euh, sañuñu cee bañ sañuñu cee nangu ndax nag ñi leen jox seen xaalis ñoom ñoo war a xool la arrangé ñu def ko loolu la ruusal ci kàddu Ousseyn Diop dañuy dem seetaani ko ci ni gën a waaw ñun mbër yi en mbër en tant que mbër ñun amuñu droit wu naan ay d'accord naa ci bëriwu ci huis clos wala d'accord moo ci bër ci huis ñun dañoo jox ñi jox seen xaalis sans dépense ñëw ak sans dépense si nguur yi ni mu leen di taxawoo bu dee tey benn Gaston Mbengue moo tëgg nguur gi ñëw yëkkati benn xaalis bu takku jox ko huis clos da koy arrangé bu dee benn Alain moo tëgg en fait tey jii euh, nguur gi ñëw jox mu comme mu financé benn vingt million nguur gi jox ko cinq millions kooku bu defee huis clos dafay surux te ñàkk xaalisam la ñu waxante dëgg. huis clos bi am na ñu mu arrangé mais am na ñu mu arrangé wul te ñun nag ay mbër lañ dañoo lekk xaalisu jàmbur man en tant que mbër quoi damay wax en li nga xamante ni mooy mën a satisfaire ma satisfaire promoteur bi satisfaire amateur lu rafet la quoi lu rafet la en fait pour ñu waxtaan ci loolu noonu nekkul ne dañu war a def huis clos by force non non non am na ñoo xam ne bu ñu defee huis clos dañuy daanu. seen xaalis génn na ba pare léegi ñëw ñu jox leen benn somme boo xamante ne satisfaire leen fayu sax seen ñetti mbër wala fayu seen ñeenti mbër tamit loolu bu ko boo ko defee yow ku doon yow tey doo ko ku la ko doon def loolu doo ko def xaarim ànd ak seeg la de pareil la tey doo ko def parce que loolu xam nga nit kuy kuy kuy gis a tool da nga ci xalaat maanaam meññeef bu bu bu bu bu la mën a satisfaire. naka noonee mbokk yi benn mbëru géejawaay bu ñuy wax Pape Mbaye nekkoon koo xam ne ku ràññeeku woon la ci làmb ji defoon fi ay jaloore ci ay kombaam yu mucc ayib yoo xam ne bëri woon na ko ginnaaw bi nag mu nekk foo foofee ca tugal moom euh, président bu euh, bu Mor Fadam euh, Pathé Sylla daal dinay wax ci li nga xam ne moom mooy carrière mbër moomee jàpp ne nag moom Pape Mbaye dina dellu siwaat ci làmb ji ndax lépp lu mu mën a am sëgg bëre moo ko gënal dañuy dem seetaani si Sylla te dellu siwaat waaw Pape Mbaye pare na pour ñibbi si bëre Pape Mbaye pare na pour ñibbi si bëre en tant que je parle en tant que président de l' école de Mor Fadam Pamba c'est un licencié dem na Espagne intégré fa club MMA yi doon entraîner Covid bi moo tax ak confinement bi moo moo moo arrêté loolu. day continuer ci carrière MMA bi mais day continuer ci carrière du bëre bi dañu bëggoon am ñaari combat Gambie ak Sénégal mu ñëw raafale ko soo ko delluwaat loolu la ñu bëggoon mais ba mu demee Espagne ba léegi day entraîner tout le temps mi ngi entraîner Pambaay nee na ma président man nekkoon milliardaire sax dinaa fay bëre. bu ma nekkoon milliardaire du ma tere damay continuer sama carrière damay bëre parce que man bëre laa bëgg loolu nag moom moo ko wax moo waxaat la ko nii mais Pambaay moom bis bu bis bu bis bu bu doon pare na ci làmb dama naan la non Pambaay pare na ci làmb. ci moom la desandi moom Pathé Sylla président de l'écurie Mor Fadam ci kàddu yoo xam ne yëkkati woon na ko daal di koy jëmale ci promoteurs yi ndax nag jàppoon ne xale yi sonn nañ ci mbas mi ba ñëpp képp koo xam ne nii tëggoon nga combat tëggoon xale yi balaa nga leen a bëriloo faaw nga dolliwaat leen wala nga joxaat leen beneen avance loolee moo nekkoon ay kàddoom waaye moom Pathé Sylla dellu ci na ca ginnaaw ci ni a gaawee dellu na ca ginnaaw ci ni mu gën a gaawee jàpp na kàddu la yoo xamante nii ba mu koy wax défendre mbër yu ndaw yi rek moom moo ko taxoon a jóg kon dañuy dem déglu ji pas de si la tëddee la parce que boobu ba léegi booba coow li dafa bëri yàgg te dégguma kenn ku waxal mbër yu ndaw yi yaa ngi dégg wax bi en tant que président ma yàgg dajanteeg mbër yi ñuy kaas lu jiitu loolu damay dajanteeg yenn boo yu bëri ñu naan ma président man buñ ma fayaatul ni man leen non da ngeen di bëri ji xam nga mais contexte pour ñu bàyyi xel mbër yu ndaw yi ku mel ne Eumeu léegi ñaata ñaata temps la xaalis boobu jeex na bu yàgg te dafa yor famille nekk nekk nekk nekk nekk mbër ku mel ne soq ak gàmmu gay ainsi de suite mbayti numéro 2 bari na man dama doon wax pour mbër yooyu nga xam ni seen niveau àggul fenn fi pour ñu bàyyi leen xel mais su may wax pour ministre des sports bàyyi leen xel fi wax pour CNG bàyyi leen xel parce que dégg naa ministre des sports génne na benn 47 millions yóbbu ko CNG CNG jël 47 millions yooyu jël 20 millions bàyyi ko ci keesam jël 27 millions séddale quelques promoteurs pourquoi pas yeneen mbër yi nga xam dañoo jëloon avance ah yooyu mu mu ko par 200 000 200 000 ñaata lay doon kooku presque est-ce que du mat 1000 mbër. day mat 1000 mbër nga jox leen 200000 200000 su boobaa mbëru mbër yi 50000 yi jëloon 50000 euh, avant 50000 boo leen ko delloowee kooku ñu wax dara mais CNG bu jëlee xaalis boobu téye ko moom euh, léegi jox quelques promoteurs il fallait que ci contexte boobu ma am man ma waxal mbër yi. mais man je suis pour le CNG je suis là pour les promoteurs man dama dama nekk fii pour làmb. duñ fa jógee fa la ñuy des ba léegi ci Eumeu seen Junior mi nga xamante ne nii moom it yëkkati na ay kàddu jagleel ko adversaire am boobee ñuy wax Kalmudur ci seen combat bi ñu war a bëre euh, bu mbas mi tëbee wala sax bu fekkee ne ay huis clos la ñuy def en tout cas ñoom ñaar la làmb boole ñoom ñaar la promoteur bi boole moom Eumeu Sène Junior ruusal na ay kàddoom ci micro Ousseyn igir booñaa boo xoolee awma ku ma fay bëreel burul booñaa booñaa moo ma fa xaw a nduur bi ma koy jël maa ko raw et puis foofu lan moo ci ñëw parce que yaa ko raw nga jël ko dinañ ci ñëw mais lan mooy problème mu lan mooy problème mu Eumeu Sène junior loolu laay wax mais problème Eumeu Sène junior mooy que ku amul li la gënal da ngay jàpp ci li fi sës bëggoon naa man di bëri di bëri ñoo xamante ni man sama laam mosuma def nii ci kaw ah. def nii ci kaw jël parce que du ko am. lamb mooy suma métier tamit du fa nekk di xaar demali suba su ma dee def nii aw ma ñi ma war a bëreel nanguñ ma jël tëkku naa fi Yékini Junior tëkku naa fi ku ne nag ku ne moo ku ne ku ne tëkku naa ko xam nga affaire yi ñëwul quoi mais du ma toog di xaar ko nga xamante ni buggul bëri ak man lamb mooy suma métier ñi bëgg bëri ak man damay bëri ak ñoom leneen la mu ruusal ay kàddoom bokk na ci feebaru booy Malika boobee nga xamante ne nii am nay mbër yu jóg di sàkku ndimbal ngir jàppale ko ba mu jógee ci ci ni gën a gaawee moom nag la mu yëkkati ay da ko jëmale ti ñaan ak autorité yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi ñu jàppale ko daal di koy taxaw ba mu delluwaat ci sagoom dañuy dem seetaan yi euh, Eumeu Sène Junior di dellu siwaat dañ koy dañ koy nuyu di ko siyaar xam nga di ko ñaanal jàmm bu baax a baax a baax di ko ñaanal njabootam yëpp yëpp yëpp di wax bonne volonté yi ñu jàppale ko te yàlla rek tax parce que doomu aadama la nit la am na famille xam nga am na ñu yaakaar ci moom da doon nekk ci liggéeyam il paraît ba loolu arrivé ko ci. xam nga dañuy ñaan nit ñi ñu jàpp ci bu baax a baax li soq wax euh, mobile wax ko lu wér la tamit mais nañ fexe suñu xol yi ànd ba pare comme ñaari association bañ fi am ñu ñëpp ñu nekk benn nit bu ko defee loolu lépp dina yemb incha allah mais ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax suñu borom taxaw gars yi taxawu ko xam nga ñu faj ko ci barki Serap Fall yi dañ ko waa ci moom incha allah. comme niñ leen ko waxee sànq rek ci njalbeenu xibaar yi huis kulo ci diggante moo dul ak euh, Ama Balde combat royal boobee nga xam ne ñëpp ngi koy xaar bile combat nag buñ koy def huis clos ci arène nationale lañ koy defee foofee nag ca Pikine la féete ñu jàpp ne combat boobee am na kenn ku mu gën a féete wala ku mu gën a jege muy Ama Balde tax nag ñu ci bari jàpp ne bi avantage lay nekk si Ama Balde waaye am nay xalaatkat ci làmb nekk ay chroniqueur nekk ay ay euh, manager nekk ñu nekk ci làmb di ci bay seen waar ñoom it yëkkati nañ ay kàddu jëmale ko ci mbir moomee ku ci mel ni Maxime Bergane Balla Diouf ak Boy Kaïré dañuy dem déglu ji leen te dellu si waat kii di Maxime Bergane di Balla juuf ak Boy Kaïré ñett ñooñee yépp xëy nañ amal ab xalaat bu yaatoo yaatu ci combat bi nga xam ne moo war a dox ci diggante Ama Baldé ak Modou Lo bile combat ñu war koo amal ci arène national ci kaw bu dee promoteur bi sàkku nañu def ko huis clos wala déet mbir moomee nag mbokk yi tax na ku ci nekk ci ñoom di xalaat ba xam ndax combat bi avantage la ci Modou Lo wala déet avantage la ci amaa Balde wala déet wala ñaar ñi anakan moo ciy profito li nu mel nag Max mbergan bam mu ci àddoo dafa xamle ne volonté combat bi mooy nga def différence xalaat ne man dama war a jàpp sama adversaire bëreeg moom daan ko loolee moo ëpp solo ñu naan fii lañ koy defee ak fële lañ koy defee waaye diw la gën a jege ak diw la gën a jege wala diw la gën a sori loolu yëpp ay wax la yoo xam ne nii bokkul ci liy jeexal combat bi lay jeexal combat ji mu nga ci digg géew ba. noonee nag la sunu papa booy kayre moom it daal di koy feelu xam le ne mu jege Ama Baldé sax ca Pikine pression lay nekk ci moom pression lay nekk ci moom ndax nag bu fekkee ne combat bi à domicile la koy joué. combat bi dana ko jege waaye boo moytuwul pression lay gën a yokk ci moom taf taf daal di cay toftal ne bile combat ñaari mbër yépp ay professionnel lañu professionnel googee ñu ñu nekk ak professionnalisme bi nekk ci ñoom tax na fu ñu mën di bëree ci biir réew mi danañ bëree ci seen teyu bakkan ball Diouf moom it la mu xam ne rek mooy combat boobee plus lay nekk ci Ama Baldé ndax biir pikin lay bëree comme que biir Pikine lay bëree nag avantage am moom Ama Baldé dana ko am ci bile combat waaye li am ba des mooy làmb ji ca biir géew ba lay jeexee arbitre mooy siffle génn seen diggante ñaari bari jàmmaarloo jëflante bu boobaa que le moom mooy gagné. ñoo ko déggandoo bu booba que moom mooy euh, gagné waaye am na beneen combat boo xam ne mu ngi à gestation maanaam ñu ngi koy waaj a taxawal muy diggante musaandooy bu yaraax ak euh, Amaneex ñaari mbër yooyu nag komba euh, léegi mu dox seen diggante gannaaw pa kàddu yi sunu papa Xaadim Samb nekk njiital Njarndem production moom nag la mu jàpp mooy bile combat bu fekkee ne sax ñaari mbër yi wax nañ lu jaadu dañuy daal di dem taxawal ko ci nu mu gën a gaawee def ko wii ku la toftal ci diggante Alioune Seye 2 ak ki nga xamante ni moom mooy ñaq njëriñ dañuy dem déglu ji suñ papa Xaadim Samb te dellu si waat bu dee ñaari mbër yi raisonnable nanu bu dee li ma leen di proposé danañ ko def wala kase yi nga xam ne moom laa leen bëgg a fay danañ ko nangu bu ñëwee boo xam ne combat dana dox seen diggante muy diggante Moussa yi ak Amaneex combat la boo xamante ne nii suñ papa Xaadim Samb njiital Ndiathé production moo ciy dox ay jéego fas yéene koo taxawal ci ni mu gën a gaawe waaye loole na leneen lu mu ca toftal mooy combat bi bu sañoon da koy def huis clos daal di won promoteurs yi nga xam ne ñoo yëngu ci làmb yoon wi ba xamal leen ne leen combat bi nii laa koy defee mais bu boobaa du ko def perpévu waaye da ciy liggéey télévision bu mag bii di 2STV bu ko defee nag ñépp dañuy mën a toog seen biir kër di seetaan combat bi muy resté chez mbokk yi loolu bokk ci li nga xam ne ni moom la sunu pàpp xaalim sàmb fësal ci journal sunu làmb bi waaye am na leneen loolee nag mooy diggante ñàkk jariñu ak Alioune bile combat it bu koy def da koy toftal ci combat Moussa Ndoye ak Neex def ko benn journée combat boo xam ne combat bu mucc ayib lay doon loolee la papa Xaadim sàmb fësal ci bile journal. loolee mooy ay kàddoom sunu papa Xaadim Samb ci combat yi nga xam ne mu ngi koy waaj a taxawal mbokk yi am na leneen loo xam ne faaw ñu dugg ci ak yéen muy combat bi nga xam ne moo war a dox ci diggante rëg-rëg ak camerounais boobee ñuy wax yi ni kii àjjuma lañ ko fas yéene amal bu fukki waxtu ak ñeent jotee maanaam deux heures ci suñu waxtu moom la combat bi fas yéene daw mu nekk combat boo xamante ni nag combat bu nar bari bëri enjeu ndax gis neen niñ leen dëgtale ki nga xam ne moom mooy Alain Ngalani ak forme bi mu amee waaye aussi kenn dootut natable Euh, performance su rëg-rëg ci bile MMA nekk euh, compétition boo xamante ne nii moom it mu ngi ci commencé def ay jéego naka noonee nag mu nga jogee foofee ca États-Unis ni ki démb daal di euh, àggi foofee ca Singapour nga xam ne fa la combat bi war a amee moom rëg-rëg digganteem ak Alain Ngalani Camerounais boobee ni ki ajuma 22 euh, janvier 2021 bu 14 heures jotee la ñu fas yéene cible bi ne combat mbokk yi li mu nekkoon li ñu leen indil tey ci xibaaru lamb yi ci wasaare lamb cant ak gërëm ñeel na leen ñu leen jox di la jëbal ëllëg incha allah ñuy jaajëfal bu baax a baax kàggu ci caméra beeg Adama waaye kenn du Ousin Diop ak euh, Jili Kebe ñu leen di jaajëfal bu baax di leen jox di la jëbal ëllëg incha allah ci yeneen xibaaru lamb nees tuut ñu ñëw ak yéen ci revue de presse bi jërë ngeen jëf. sarax la ñuy def ci xew-xewu lamb tey fekk fa combat ba war a dox ca diggante Modou Lo ak Ama Baldé le combat royal tant attendu diggante bu ndaw ak xarañ loo boobee la journal ba ñëw ca na mu gën a yaatoo ñoom nag tàbbi nañ ca xalaatu combat ba buñ ko naroon a def wii kulo te fas yéene koo defee foofee ci arène nationale diggante Modou Lo ak moo cay bénéficié wu bile combat royal buñ ko fas yéene woon a tëgg wii kulo ci ci làmb sànni ci seeni kàddu muy Maxime Bergan di Balla Diouf di Boy Kayre ku ci nekk joxe nga sa xalaat ba xam moo Lo ak kan mooy bénéficié wu ci combat bañ war a tëgg wii ku la ci arène nationale bu dee Balla Diouf la nekk ci Ama Baldé ñu ko tëggee wii ku la ci arène nationale loolee avantage Ama Baldé amul kenn ci ñoom ñaar ku ci ami problème ñu koy tëgg wii ku la ci arène nationale waaye am na ku ci ëpp avantage bile combat plus lay nekk ci Ama Baldé ndax fiefam la waaye tamit bu ñu fàtte ne ñoom ay professionnel lalu ak fu ñu mën a tëggee combat ba lay xew ca digg géew ba lay xewee bu dee Maxime Bergan naan moom it fa Balla Diouf daanele fa la àddoo moom la mu xamle mooy buñ ko tëggee ci arène nationale ci huis clos it la volonté et l'engagement feront la différence buñ ko mën di tëgg ci biir réew mi volonté ba ak engagement ba képp mooy def différence ba en ñoom ñaar ñëpp lu bees lay nekk ci ñoom ndax kenn mësula bëre ci huis clos ku ci mës di bëre ba nga tàmbalee sa carrière ba léegi ni say supporter boo gëstoo da leen di gis sa ginnaaw li sax mën nañoo jàpp ne pression lay nekk ci ama waaye li muy nekk pression pression ci kawam mënu koo déstabiliser ndax ku xam Ama Baldé xam ne champion la Modou Lo it jóge ga muy jóge parcelle ñëw bëri si Pikine loolee du dara ci moom ndax ay mbappatam yu ci bëri Pikine ak Géejawaay la ko bëree lieu baak forme ba ñuy tëggee combat ba jàpp naa ne mënta yàqal kenn sa bés bu nu jàllee ca njiital njar ne production moom la promoteur Khadim Samb commencé naa démarché ay combat gannaaw ba mu jógee ci combat bu moo nekk ci ay gëtam takkaat na jaaj taxawaat combat bi ko teree ne la mooy diggante mooy bu ñu waxee lu jaadu ko koy def te danaa ci liggéey ak 2STV bu boobaa lu mësul am ci làmb laay def mooy journée restez chez vous bile daal man Xaadim Samb pare naa ngir testé ko journée yu mag yi laa fay yóbbu diggante Moussa Ndoye ak Amaneex diggante Aline Seyda ak ñàkk jariñu bu ko defee sax ma woon xale yi yoon wi woon leen nakalaak nan la leneen la journal ba xëy fësal mooy mbër ya jotoon a lekk avance ba taxawoon di wàaj seenub combat mbas mi fa mu leen fekk neexul jëmul kër ba ñu lekkee seeni xam moom la mu xam mooy heureusement ba làmb ji dama ko boole ak mécanique bu làmb ji doxul ma dem ca ba bu dee Cobra nag moom la mu xam mooy Sénégal gépp a mbas mi ngay mbër wala loo mën di doon yaa ngi yëg mbas mi man message ba may lancé ci président laa koy jëmale ngir mu gëstu ndaw ñi bu dee soq ma waroon a jano gàmmu géy moom la mu xam mooy làmb ji mooy suñu gañ pee mooy suñu métier ci la ñuy li ñuy faje fukki weer yi ñu toog liggéey yi ñu ko loolee suñu pertement la gannaaw xaadim sàmb nag beneen promoteur ba pare ngir tëgg ay kombaam à huis clos mooy Mamadou Dieye Sène moom kombaam ya mu taxawal diggante Gris ak Abdou Diouf Jackson Senior ak Naaru Sokas pare na ngir def ko huis man yi le pare naa ngir def ko huis waaye day fekk nag état bi jàpp ci ñépp xam ne wut sponsor dafa xaw metti rawatina ci période boo xam ne sponsor bi xam ne da ëllëg incha allah. Thank you.